lan moy appartenance politique bu Pape Mamar gay. lan moy sa accompagnement da nga nekkoon biir Benno bir APR di jappelé le président Macky Sall ñu jëm ci benen phase tay lan moy la décision officielle bu Pape Mamar gay. lan moy taxaway Pape Mamar gay sur le plan politique. jerejeuf lal nga point bi euh, nga may ma tey occasion à travers ces émissions ma am message bo xamni mom lay lancer lancé à l'endroit de toute la population de Tivaouane et message bo xamni mom moy nek premier message bi may lancé aussi à l'endroit de tous les Sénégalais yalla dogal na ma nekone bir APR APR nek en coalition tudd maintenant coalition bi tudd Benno bokou yakar ma liguey fa ànd ak ñoom cheminer ak mom def ci sama xam-xam def ci sama doole ba tey ñu egg ci étape boo xam ne Sénégal war a rëddaat beneen taarix ci histoire ñu egg étape boo xam ne ñëpp dañoo taxaw di xool Sénégal àdduna bi ndax mu nekk réew moo xam ne exemple la nekk ci àdduna bi Sénégal nekk réew boo xam ne vitrine la ci démocratie en Afrique Sénégal nekk réew moo xam ne ay magam kilifa yi fi jaar kenn ku ci nek apporter ce pierre ñuy tabax démocratie ba mu egsi fii tey ñun ñëpp ñu jël sunu espoir ak sunu yaakaar porter ko ci président Macky Sall mu taxaw ne moom def déclaration deful laajul troisième mandat àdduna bi yëpp tàccu Sénégal yëpp seen xel dellu si Sénégal yëpp seen xol gën a gën a gën a gën a ñu gën ko tàppe parce que kat nee nañu ah njiitu réew mi li ñu doon ruumandaat di ko soupçonné ci moom wane na ne tey moom réew mi rek mom moko ñor mu nek lo xamne ñun aussi dañ ko salué woon bu baax ñu dugg ci processus électoral ba ñu élection yi campagne électorale suba lay commencé li ñu berte à notre grande surprise mu jaaxal ñu ça nous a étonné mu écœuré ñu nakari ñu président de la république taxaw def déclaration né mom de dafa jël décision pour ñu reporter élection yi fi ak 15 décembre mu nekk loo xam ne peuple sénégalais bi yëpp naqarlu ko peuple sénégalais bi am ci déception ñun nag ñuy am acteurs yoo xam ne dañu am ay principe am sunu sunu historique am sunu passé ci loo xam ne buñ ci d'accordul dañuy wax d'accorduñ ci am loo xam ne tamit moom la ñu yàgg mébét pour sunu réew am yaakaar boo xam ne porté woon nañ ko ci ki nga xam ne moom la ñu àndaloon mu am taxawaay bi ñu jël décision ferme ne ñun dañuy quitter APR ñuy quitter APR. man ma jël décision ak ñima andal bis dina ñëw bala mo yag dinañ gis ñi nga xamni position ñu nak taxaw à partir d'aujourd'hui sunu taxaway biir APR yamalé nañ ko fi. sunu liggéey bi nga xamni mom def di indil APR lu bare bare bari tay fi lay sunu gis-gis sunu moral ak suñu principe ñoo permettre ñu def lu mel nonu ba paré ñun ñu continuer di cheminer ci biir parti bobu di cheminer ci biir coalition bobu donc donc boo quitter APR da ngay quitter en même temps le Benno Bokk Yaakaar wala da ngay dess en même temps si Benno donne allié. non xam nga mënoo ne damay génn suma génné génnee moy mooy génn naa Sénégal. waaw damay génn sama dëkk moy génn na Sénégal. waaw donc APR bankas la ci biir Benno Bokk yakar waaw donc so quitter APR forcément de ngay quitter la coalition Benno Bokuyakar. donc bayinga APR bayinga Benno Bokuyakar. donc vous n'êtes plus membre euh, du pouvoir. non du pouvoir. xam nga pouvoir ak parti bokkul. Non, mais non, lañ ko mën hein, parce que nous ñoo nekk au pouvoir c'est l'APR qui est au pouvoir wala Benno Bokuyakar. Nous, ñoom ñoo yor la gestion euh, de l'État donc yow bokkatoo ci ñi nga xamante ni tey jii. waaw xam nga parti politique parti politique dafay doon buntu. bu ñu conquérir pouvoir yor ko. mais parti politique ak pouvoir bokkul. waaw waaw waaw. mais ñoom ñoo yor pouvoir man nekkuma ci pouvoir bi. amuma ci amuma ci amuma ci nguur gi. waaw benn responsabilité loolu fenêtre la rek duñ fa taxaw sax donc dama doon exercer samay activité politique biir APR. mais ci pouvoir loolu laa bàyyi waaw. bu fekkee ne APR moom moo nekk pouvoir bi ay njiitu APR ñoom ñoo yor pouvoir bi. pour ak lu mën ti rek xam. bu féké né yor. Mhm. man jël décision ne quitter naa APR. donc bu fekkoon ne dama ci amone ay responsabilité ci biir gouvernement bi damay jël sama courage avec mes deux mains jël lolo délo len ko. té dina né comme jaar ba ngeen jox ma ndomba gi gisatuma ci sama par rapport à mes principes par rapport ak sama moral par rapport ak sama éthique seen ngi jël ko ba mu rafet comme Abdou Latif Koulibaly comme ñeneen ak ñeneen nuñ ko défé non bayina bayinga Benno bayinga je suis je suis formel et très précis. suis Je suis wax mën egg fu décidé na Je APR bi nga xamné mu ngi nekk ci biir coalition Benno euh, nga may ma occasion à travers suis émission ma am message bo xamné je l'ai lancé à l'endroit de toute la population de Tivaouane et message que xam mom moy nek premier message bi may lancé aussi à l'endroit de tous les Sénégalais Yalla dogal na ma nekkoon bir APR APR nek en coalition tudd maintenant coalition bi tudd Benno Bokk yakar. ma liguey fa ànd ak ñoom cheminer ak mom def ci sama xam-xam def ci sama doole ba tey ñu egg ci étape boo xam ne Sénégal wara a rëddaat beneen taarix ci histoire ñu egg étape boo xam ne ñëpp dañoo taxaw di xool Sénégal àdduna bi ndax mu nekk réew moo xam ne exemple la nekk ci àdduna bi Sénégal nekk réew boo xam ne vitrine la ci démocratie en Afrique Sénégal nekk réew moo xam ne ay magam kilifa yi fi jaar kenn ku ci nekk apporter sa pierre ñuy tabax démocratie ba mu egsi fi tay ñun ñëpp ñu jël suñu espoir ak suñu yaakaar porter ko ci président Macky Sall mu taxaw né mom def déclaration deful lajul 3e mandat aduna bi yëpp tàccu sénégalais yëpp seen xel dellu si Sénégal yëpp seen xol gëna gëna gëna gëna ñu gën ko tapé parce que kat nee nañu ah njiitu réew mi li ñu doon ruumandaat di ko soupçonné ci mom wane na ne tey moom réew mi rek mom moko ñor mu nek lo xam ñun aussi dañ ko salué won bu baax ñu dugg ci processus électoral ba ñu ne élection yi campagne électorale suba lay commencé li ñu bett à notre grande surprise mu jaaxal ñu ça nous a étonné mu écœuré ñu nakari ñu président de la république taxaw def déclaration né mom de dafa jël décision pour ñu reporter élection yi fi ak 15 décembre mu nekk loo xam ne peuple sénégalais bi yëpp naqarlu ko peuple sénégalais bi am ci déception ñun nag ñu am acteurs yoo xam ne dañu am ay principe am sunu sunu historique am sunu passé ci loo xam ne buñ ci d'accordul dañuy wax d'accorduñ ci am loo xam ne tamit moom la ñu yàgg mébét pour sunu réew am yaakaar boo xam ne porté woon nañ ko ci ki nga xam ne moom la ñu àndaloon mu am taxawaay bi ñu jël décision ferme ne ñun dañuy quitter APR dañuy hmm. quitter APR. damaa quitter man maa jël décision ak ñi ma àndal bis dina ñëw balaa moo yàgg dinañ gis ñi nga xam ne ñëpp bokk naa ci ak ñoom position ñu nag taxaw ne à partir d'aujourd'hui sunu taxawaay biir APR yamale nañ ko fi sunu liggéey bi nga xam ne moom lañ doon def di indil APR lu baree baree bari tey fii lay dakke ndax nag sunu gis-gis suñu moral ak sunuy principe mënuñoo permettre ñu def lu mel noonu ba paré ñun ñu continuer di cheminer ci biir parti bobu di cheminer ci biir coalition bobu donc donc boo quitter APR da ngay quitter en même temps le Benno Bokk Yaakaar wala da ngay dess en même temps si Benno don allié. non xam nga mënoo ne damay génn suma génné génnee moy mooy génn naa Sénégal. waaw damay génn sama dëkk moy génn na Sénégal. waaw donc APR bankas la ci biir Benno Bokk yakar waaw donc so quitter APR forcément de ngay quitter la coalition Benno Bokuyakar. donc Bayinga a APR Bayinga Benno Bokk donc vous n'êtes plus membre euh, du pouvoir. non du pouvoir. xam nga pouvoir ak parti bokkul. waaw mais noonu lañ ko mën a hein? parce que nous ñoo nekk au pouvoir c'est l'APR qui est au pouvoir wala Benno Bokk Yaakaar ñoom ñoo yor la gestion euh, de l'État donc yow bokkatoo ci ñi nga xamante ni tey jii. waaw xam nga parti politique parti politique dafay doon buntu. bu ñu conquérir pouvoir yor ko. mais parti politique ak pouvoir bokkul. waaw waaw waaw. mais ñoom ñoo yor pouvoir man nekkuma ci pouvoir bi. donc amuma ci amuma ci amuma ci nguur gi. benn responsabilité loolu fenêtre rek duñ fa taxaw sax dama doon exercer samay activité politique biir APR. mais ci pouvoir loolu laa bàyyi waaw. bu fekkee ne APR moom moo nekk pouvoir bi. ay njiitu APR ñoom ñoo yor pouvoir bi. ak lu mën ti démé yalla rek xam. bu féké né ñom ñoko yor. Mhm. man jël sama décision né quitté na APR. donc bu fekkoon tay ji dama ci amone ay responsabilité ci biir gouvernement bi damay jël sama courage avec mes deux mains jël lolo délo len ko. té comme fi la jaar ba ngeen jox ma ndomba gi gisatuma ci sama par rapport à mes principes par rapport ak sama moral par rapport ak sama éthique seen yëf ngi nonu jël qui ko ba mu comme Abdou Latif Koulibaly ko comme ñeneen ak ñeneen nuñ ko défé bàyyi nga. non bayina naa. bàyyi nga Benno nga APR. je suis je suis formel et très précis. radio lay waxé limay wax mëna egg fu soree soree sore. way décidé na bàyyi. APR bi nga xamné mu ngi nekk ci biir coalition Benno Bokk yaaka